asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëw nañ tey ci seen vidéo numéro 28 ci cours bii di HTML ak CSS tey nag ñu fas yéene wax ci yeneen maanaam euh, euh, propriété CSS ba tey yoo xam ne ba tey ci font lay aju kon nag ci chapitre 28 bi danañ gis. maanaam propriété CSS yi nga xam ne type font la lu mel na font size pour taayu texte yi maanaam taay bi naka la war a toll dinañ gis tamit lan mooy font style mooy style texte bi texte yi nan lañu war a mel waaye dinañ gis itim font weight nga xam ne moom mooy poids wu texte yi kon ngeen xam rek ne taille euh, taille yi dafa am ñaari façon am na taille de police yoo xam absolu lañ leen di wax yooyu px mooy nekk seen unité comme pixel wala pt comme point donc yooyu mooy taille de police absolue yoo xam c'est fixe donc px wala pt am na yeneen taille de police yoo xam c'est relative yooyu variable la donc pourcent lay jël pourcentage wala em wala ex yooyu nag day mën a adapté wu ça dépend li leen contenir rek léegi nag ngir ñu mën a leeral loolu dañuy dellu ba tey ci suñu euh, cours bi ñu daal di supprimer lépp ba mu des waaw bon baax na sax mën nañ ko bàyyi nii donc li may def rek mooy supprimer kon li nga xam ne moom mooy bi léegi nag ma daal di def par exemple gis ngeen fii ci HTML bi am naa fi benn H1 ak benn paragraphe donc ci H1 bi def h par exemple H1 baa ngi nii ma jox ko par exemple benn taille font tiré size deux ma jox ko cent pixels gis nga par exemple fii H1 bi nekkul cent pixels léegi su ma ko defee cent pixels ma enregistré dama ne que lépp luy H1 def ko cent pixels donc su ma actualiser gis nga H1 bi nekk na cent pixels léegi ma ñëw ci font bi jox ko cent cinquante pixels mooy paragraphe gis nga texte bi ni mu tuutee. léegi ma ñëw ne ko paragraphe defal ma cent cinquante donc p nga def font size jox ko cent cinquante pixels moom it enregistré donc bu ñu actualiser nga gis ne gis ne bii daf nekk na cent cinquante pixel donc loolu mooy font size pour nga mën a am taayu li nga xamante ni moom mooy euh, euh, police bien ah. léegi nag ñu ñëw ci style yi style yi nag bëri na mën na nekk italique comme nga dëngal ko mën na nekk façon yu bëri quoi donc par exemple su ma bëggoon sama H1 ma def ko italique donc damay def font tiré ma def style deux points ma def italique voilà enregistré voilà gis nga ni bii nekk na italique mooy sama h léegi xaar ñu ñëw beneen bii tamit def ko italique léegi nag am na beneen façon boo beneen euh, looy utiliser pour def italique moom mooy oblique par exemple defee font style de point ma def oblique oblique nag bu fekkee da nga bëgg def benn texte en italique bu bu bu italique bi moo bi bu jàllul rek defal oblique moom dina jàllul donc ñu enregistré mu actualisé gis nga bii aussi def na ko public voilà léegi ñu xool wàllum poids poids yi nag moom aussi nekk lu am solo par exemple H1 bi ma defal que font wide de points ma def normal voilà donc ci poids yi nag xaaral ma wan leen par exemple poids yi cent moom mooy euh, loo xam ne dafa euh, très très fine bu dee neuf cent moom mooy taille bu épaisse bu dee quatre cent moom mooy normal bu dee sept cent moom mooy bold comme gras donc cent mooy très très fine neuf cent mooy très épaisse quatre cent mooy normal bold aussi moom mooy sept cent voilà donc yooyu dañ ko doon wan rek pour ngeen xamee ko noonu léegi fii par exemple def naa font weight ma def normal donc fii aussi mën naa ñëw ma def font tiré weight ma def par exemple 700 mooy pour mu nekk en gras quoi voilà ñu di ñëw ñu actualiser nga gis ne voilà gis nga bi en gras laa ko def bii dama dama def police normal rek moo tax changé wul su ma neexoon yokkut valeur bi léegi mu changé comme bii ni mu nekkee aussi en grade kon loolu leen indi loon tey ci seen euh, cours numéro 28 ba tey ci HTML ak CSS leen jox daje kon ci beneen cours jërë ngeen jëf